asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, jaajëfal di leen ñaanal jàmm ci bis bu sell bi te it di ko sàkku ci yenn su ko defee defaat nañ teew fii si seen euh, plateau le journal de la reine xam ngeen ne nag plateau bi duma ci wéet duma ci ànd ak euh, sama góor bu baax boobu Babacar asalaamualeykum Babacar. waaleykum salaam wa rahmatullah rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi seetaan. Euh, di la ziar di leen ziar di ñaan comme ni nga ko waxee rek jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def si àddina def ko si sunu réew mi nag. ci Sénégal tamit si barke yowmal juma bi nga xam ne moom lañ nekk di bis bu sell. di nuyu bu baax a baax di la kontaane di nuyu Mansour bi nga xam ne tamit moo ne si cadre bi. di cadre émission bi. merci beaucoup Babacar mi noonu tey daal da ngaa da a sedd daal nu mu fa demee noonu. non non nag damaa sedd. Uh-huh. kon bàyyi ma yokk kàddu gi ramatulaay loo <laughs> maa ngi si jàmm tey sa cuub baax na ak sa taay baas. ah ak sa. merci yow laa ko tuddee Babacar lu mën nga ko tuddee comme ak sa seenu sa seen en or. ak sa montre en or. amiin gisoo man tamit bi ma takk. <laughs> non xool day gisee bleu bi dafa xaw a gisee sax. bien sûr ak nga sa bleu blanc nii. Ah. waaw waaw noonu la du mën a ñàkk. macha xool day gisee yaa ko wax na neex. <laughs> nii noonu Babacar su ko defee ñu daal di dem rek seetaan loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi di kàcc. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. vendredi 3 décembre 2021 dañuy ñëw ak yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi tey xëtamu njëkk la xëy gën caa fes bokk na ci combat bi nga xam ne ni daal fi nekk nii ñépp moom la ñuy togga ci garam place yi di ko waxtaane di ko naane café di ko demee ca marché ya muy combat Papa Sow ak Seta yëglikaay bi nag tey dafa xëy dalal koo xam ne bëre na ba bàyyi bëre di koo xam ne xam-xamam màcc na ci lamb bu baax a baax a baax ba ca des tamit mu nekkoon koo xam ne jamono jam cay toll bëre lu mu mënoon la lool muy Zallo ma ngeen xam mu nekkoon écrit face nag tey daal moo xëy di wax ci combat bi le 5 décembre bi Zallo ne na bu bëggee dégg dëgg daal maanaam combat ba ba mu ko décortiquer lam ca gis mooy bu dee wàllum favori ne jox na ko ki nga xam ne moom moo di Papa Sow ñu ne ko lu tax mu nekk nag parce que Zal ne na papa moo gën a yàgg ci làmb ji ne na lii moo tax ma jàpp ne moom mooy favori ci kaw Siteu waaye nag itam jàpp na ne ba tey ci côté xeex bi tamit ne na bëggee dégg dëgg papa na teey de ndax daa jàpp ne Siteu dee wàllum xeex bi moom la gën a arrangé loolu mooy waxi ba tey tamit na loo xam ne jàpp na ne mu ngi tey dànkaafa Papa Sow nee na ko bul fexe mukk wa ci sam xel ngay xalaat di jéem a xeeb Siteu wala nga koy sous-estimer nee ko boo ko defee moom jàppal ne tama du la ëpp ay buum loolu zàlloo moo ko wax du sama ay wax ba tey combat bu nga xam ne tamit ci la jëm mu mel ni que ko tëgg nag muy Pape Abdou Fall moom maanaam sécurité ba moom naru koo foye moo tax nag jàpp nañ ne daal bu bëggee dégg dëgg daal maanaam arène nationale ba maanaam maanaam wàllum semi moom dana fa doy ba mu mat sëkk sécurité ba daal moom foo toll di nga ko gis te itam nag ku fa ñëw da nga xam ne moom fooyewul bésam loolu Pape Abdou Fall moo xëy tey wax ko fa nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ba tey ci boobu combat ka nga xam ne tamit moom moo di Bira Sène jiite seen CNC bi maanaam yore làmb ji moom itam xam ne ne daal ci combat si te moom maanaam dañoo bëgg image su làmb gën a set gën a itam mérito li nga xam ne nii moom lay nekkee maanaam daal loo xam ne lu taga ci yoon lay doon loo xam ne luy lay doon yoon ñu jox ko image boo xam ne daal ku ko gis da gën a nawloo làmb loolu may waxee ka nga xam ne moo jiite làmb ji di bira seen ba tey balaa noo dem nag ca la cinq la quatre ci diggante bi ab combat am na fi war a dox ci diggante Kaw Gourdin ak Caatu Daawuda Fall jag sa tëggu ko muy samedi suba ji maanaam combat ba nag moom ka nga xam ne moo di Babacar Diom yëglikaay bi ne na moom la xëy tey dalal daal mu nekk ci Equivox moo xëy nag di wax ca combat Kaw Gourdin ak ka nga xam ne moom moo di Caatu Daawuda Fall Babacar moom la mu jàpp mooy ki nga xam ne moo di Kaw Gourdin de boo bëggee dégg-dëgg ci wàllum daal maanam favori daa jàpp ne moom mooy favori yi ci diggante ma caatu Daawuda Fall la tax Babacar wax loola nag nee na fa ko teg daal nee na boo xoolee moo gën a yàgg ki nga xam ne moo di caatu Daawuda Fall ci làmb te itam nag lamb simple ja lam cay wane xaw leer na lool moo tax mu jox ko favori waaye nag nekkul favori boo xam ne cent pour cent légèrement daal la ko ko joxe waaye tamit jàpp na ne caatu Daawda Fall ku jara bàyyi xel la ba tey moom Babacar mooy wax parce que nag daa jàpp ne xale la boo xam ne la muy bëre sax romb na ay atam te itam nag xale la boo xam ne bu fonk entraînement am la ba tey loola Babacar a koy wax ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb beneen combat boo xam ne ni moom taxaw na dëgg nag di Petit Production mu dox ci diggante ki nga xam ne nii daal moom moo di xale ba nga xam ne moo dëkk ngor di ki nga xam ne moo di sa xam ne moo di caatu rëbës si ki nga xam ne daal mooy Petit Production moom ginnaaw bi mu fi jaaree toogoon benn temps gisaatuñ ko mu làqutu léegi nag di dikkaat na ba mu dikkee nag moom ñaari xale daal la xëy tey boole leen démb nag la doon présenté boobu combat moom ma nga xam ne moo di Petit Production kenn koo xam ne nii moom bëre na ba daanu muy sos ginnaaw ba mu daanoo nag te itam la ko daane bokk ci dóor boo xam ne Alioune Seye 2 da ko koo dóor mu gaañu ci bët ba mënatul a bëre Zoss nag ba mu loola passé mu xëy daal taxaw ne Alioune Seye 2 moom la mu ko dóor maanaam du loxoom kese daa jël benn obse waanaam yaa xam bant la wala loo xam ne daal mën naa gàññ boole ko ko loxoom dóor ko ko mu mel ni ki nag Zoss loola moom la waxoon yemu ca moom Zoss tamit daal wàllum arrêté carrière am tontu na ña ko koy wax Zoss ne na lan moo tax may arrêté sama carrière lu tax ma war ko arrêté damay continuer ba mu saf sap waaye la mu waxoon daal ne Alioune Seye 2 daa am lu mu boole loxoom dóor ko ko daa mel ni Alioune Seye 2 tamit xëy na tontu ko comme olof moo ko wax tontu du forox Alioune Seye 2 nee na ko bu bëggee dégg dëgg dooruma la lenn lu dul ab loxo xanaa kay loxo ba moo sax moo saf sab uppercut daal laa la dóor sab arkaat daal di ubbeeku mu mu naaj nga dem àddoo laa mujj a jeex Alioune Seye 2 nee na ko daal kon sos seeti leneen loo wax moo gën lii ngay dox di ko wax maanaam kon sax day nekk ñàkk ba pare. continuer di ñànki loolu yëglikaay ba di sunu làmb moo xëy xamal na ko ba tey sunu làmb mu nga xëy wala boog buñ fa jógee record la ñuy dem record daal mu ngi nu xëy di nu xamal ne daal soo bëggee dëgg-dëgg la nga xam ne daal moo di yàq ya ñuy def ca arène nationale ba daal ka nga xam ne nag moom moo di Bira Sène moom maanaam daa mel ni daal mbër ya daal la accusé wala boog ñoom daal mbir ma saa bu génne mbir ma ci ñoom lay mujj dal waaye ka nga xam ne nag moom mooy directeur technique ku écrit kaay baax de ka nga xam ne moo di Ahmed Konaté daal mesure booba seen see jël moom moom da caa d'accordul tey suba waxi noppi ak ci la ren ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record ka nga xam ne nii nag moo di Ablaye Diop borom sum production daal suba maanaam teg na mise su un million terrain adresse Senghor yemu ca dolli ci scooter keneen koo xam ne ni moom ay fan si clubam ñoo tëgg lamb fas ko ci yeneen nag sargalati muy Bukar Ndour bu Lutte TV yëglikaay bi ne nag loola nag jaxaaw sin daal la fas yéenee amee mel ni ki nag daal jàppal le 18 décembre moom kon ku jëm jaxaaw nii daal moom moo di Boucar Ndour teg fa mis boo xam ne daal toll na ci un million yëglekaay bi xëy na tey ñëw di nu jox boobu la information. mi ngi noonu Babacar seetaan nañ loolu nga xamante ne ah? mhm. daal gis nga gars yi bëgg maa def statut ni ne bu ma bougé bu baax loo gis ci loolu. déet da war a yëngu <laughs> yëngu daa baax dañoo war a yëngu ah? Ah? di xool di xool caméra bi de temps en temps loolu mënul di xool internet yi di xool internet yi voilà Mansour bëgg ma def statut nii comme genre monument taxaw benn place xale bu ndaw nga xale day yëngu xale day bajjantu sax nag <laughs> eh, doy na ba kay ah. <laughs> xale du mag waa xanaa ah uh-huh. <laughs> boo yënguwut le week-end ñu dem ak suñu làmb ah. waaw nee nañu Zale Lo décortique euh, le choc de de ce 5 décembre. Mhm. Papa Sow part favori par son ancienneté. Mhm. daa mel ni actuellement euh, kooku di Papa Sow. Mhm. moo moo gën a jël euh, garde gi daal parce que on voit que moom moo gën a yàgg ci ci arène bi. waaw Zale Lo ñu koy nuyu di ko ziar moom ancien leader la. bokkoon nag Papa Sow mi même écrit. Papa Sow nekk rakkam. kon mhm. moom xam na papa Sow bu baax a baax a baax a baax. Mhm. bu ñëwee jox ko favori parce que papa ancien la yaakaar naa ne loolu dafay jaadu parce que ki nga ku la jiitu si néegu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee. Mhm. te papa euh, lu coow li bari bëri mu jiitu si si làmb. parce que yaakaar na suma su ma jumale ay 2003 jàpp 2004 la papa ñëw ci làmb ji. kon jiitoo na Siteu lu yàgg ci làmb mais xëy na tey Siteu moom tamit liggéey na ba mérito bëri ak papa Sow. kon sax li mu wax lu jar bàyyi xel la papa Sow mooy euh, favori. parce que ancienneté la ba pare tamit bëri na ay combat yoo xam ne nii bés yoo bëri na ak mbër yoo xam ne xëy na Siteu bëreegul ak ñoom mm. parce que yàlla dogal na Papa Sow ak Balla Gaye 2 mm. bëri ak Lac de Guiers ak Modou Lo yaa ngi dégg te loolu lépp man tamit daf lay may expérience ça veut dire que yàgg na ci milieu bi mm. waaye nag loolu damay wax chaque jour que ni rek favori moom ci ay kayit comme yu mel noonu lañ koy noté mais nag sur le terrain moo fa am. Mhm. waaw mais combat la boo xam ne daal bon bu nar a neex la. di sam dimanche mais nag euh, nee nañu kooku di Papa Sow warul xeeb kooku nga xamante ne mooy Siteu. non xeeb boo xeebee xal mu lakk sa dàgga. Mm, mm. xal kenn du ko xeeb. Mm. Euh, te Siteu xale la boo xam ne combat bi li ma gis. mu di ko dagaase. ni ko Papa Sow bëggee la ko Siteu bëggee ñoom ñaar ñëpp ku ci ne da nga bëgg combat bi. Papa Sow sañ ta xeeb Siteu ba fekk si dégguñu la cest à jiitu ci làmb lu bari. dëgg am victoire yi mu nombre de victoire yi mu am. Mm. est-ce que nombre de combats yi tollu na noonu sax boo dajalee li c'était bëre lépp. Mm. tollu wu ni kon sa kon kooku nag bu ñëwee ba tey ba yàlla dogal ñu boole leen ngeen war a bëre non boo ko xeebee def nga musiba. parce que xale la. Euh, maanaam lamb bàyyi na ko xel mm. wane na lu tax làmb bàyyi ko xel te itam gëm na lu muy def kon defe naa ne foogu mën a xeebante dina fa am te nag lamb boo jumulee doo daanu waaw te adversaire saa yoo ko xeebee yoo mën laa bett. <laughs> mi ngi noonu waaw mi ngi noonu jar na bàyyi xel euh, kooku di Pape euh, Abdou Fall promoteur. Mhm. il s'est prononcé sur euh, loolu nga xamante ne mooy combat entre Siteu et Papa Sow. Mhm. nee il y aura. suffisamment de GMI e mhm. pour la sécurité. groupement mobile d'intervention. Mhm. Pape Abdou Fall moom mooy le promoteur ñu ngi koy mhm. ziare bu baax moom tamit moo wax na dëgg parce que bis bi yaakaar naa ne toll na noonu ah boo xoolee ren événement yi am arène nationale yëpp bëri nañ waaye événement bu toll nii nag wax dëgg yàlla ci côté niveau bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax mu ngi fiy am. combat yi fa jaar nag bëri na lool mm. mais combat yooyu ak bii c'est pas mm. parce que ñaari mbër yi ko xam li ñu boot ak ni ñuy déplacé wa ak mbool yi leen topp à Papa Sow parcelle ga mun bees ci lu bees parce que Cri ko daan ngem andi mm. mais bi yoon waa parcelle la koy ba andi ko mu sànc Cri bu bees war a ñëw ànd ak mbooloo yaa ngi dégg parcelle yëpp rangé wu si ginnaawam Siteu ku ne xam na mbooloom Siteu kenn du ko nattable ça veut dire que kon ñooñu boo leen waree dajale nag ci dimanche googu ak enjeu bi ne si combat bi ku nekk bëgg ndam defe naa ne la ngay jëkk a xalaat mooy sécurité te promoteur bi kon defe naa ne mu def tamit dañ ko ciy remercier moom sécurité bi la njëkk bàyyi xel mhm. parce que sécurité boobu dafa am solo parce que bu amulee la yeneen mën na fa am ndax dafa lay faral di wax souvent que ni ay euh, ramatulaay mhm. am na ñoo xam ne bu gàmm jotee dañuy gàmm si ñoom waaye am na ñoo xam ne nag déem la ñuy raas si mhm. raas kat yi déem yooyu nag faaw sécurité am man leen di seppi ci nit ñi xamal leen ne fii du raasukaayu déem mais pour gàmm la moo tax Pape Abdou Fall tamit ñu jël sécurité bu doy pour bés ba. dëgg la mais Babacar tu penses pas lors des combats si biir dafay am loolu nga xamante ne mooy ay intrus maanaam du supporter kese moo leen tax a jóg mu yàq sàcc ak yeneen ak yeneen. bien sûr day am ay rax. Mhm. fu mbooloo daje. Mhm. am nañu fa rax. Mhm. kër liggéeyukaay yi sax day am ay rax. dëgg la waxatuma laa nag fu mbooloo daje ay milliers de personnes wax fa daje. dëgg dégg. dangay dem dem euh, eh, eh, euh, xëy na ñun demaguñu bayti laali arab yàlla nañ fa yàlla yóbboo ak jàmm si yaara yonent bi sallallahu alayhi mais ci information yu am wala dañ fay dem xam nga foofu ko fa dem ngëneel nga fay wuti ji ak sàkku ji barke ak ñaanu texe mhm. ndax la ca yàlla wax mhm. moo fa mooy li nekk ndegam foofa ngay dem ay nit di fa ñëw foo ñoom uniquement ngir sàcc wallaay ah, ñu woote gàmmo ca Tiwaawan ay mhm. nit ñëw ngir sàcc ñu woote màggal ca Touba ay nit ñëw ngir sàcc ñu woote appel Layène fii ci Yoff ay ñëw nit ay nit ñëw ngir sàcc kon nag su ma laa làmb ja mm. parce que foo gis mbooloo mu daje am na ñu leen rax mm. waaye nag it ñu ngi jaaraamal suñu sécurité waaw parce que ñoom dañ def le tout pour di xeex ak ñooñ nga xam ne wala boog di jéem ma recherche ñooñ nga xam ne dañoo mel ni man te xam ne mm-hmm. jàmm taxu leen a jóg lu normal tax leen a jóg nu lor leen tax a jóg yal na yàlla musal yal na ñu nañu yàlla musal si ñoom. amiin yaa rabbi. Mhm. mi ngi noonu Babacar looloo jarañoon euh, Bira Sène. Mhm. organisation de site et Papa un on veut donner à la lutte la bonne image qu'elle mérite maanaam fii daal mun nañoo dañoo bëgg a jox loolu nga xamante ne mooy làmb ji. wàccuwaayam waaw wax na dëgg parce que moom moo jiite moom mooy président wu CNG lépp luy làmb Sénégal moo ko yor ci loxoom moom la ko état du Sénégal dénk moom Bira Sène ñu koy ñaanal mu réussir ko mm-hmm. ak ñi mu ko seqal ñëpp rawatina suñu xarit Maysa Ndiaye mi toftalu ci moom mm-hmm. mais bon loolu mu wax defe naa ne ku ne tey di Sénégal wala ngay dund làmb loolu nga bëgg làmb ji image bi nga xam ne mooy image bi mu war a am mooy image bu nga xam ne sport lay doon ak culture ak la ca aju mm-hmm. te leneen du ca rax donte rax yi du ñàkk kon defe naa ne bu buñ ko xalaatee te ci image ci combat Papa Sow euh, tamit dafay am solo daal yàlla na yàlla def daal dimanche ak li des ci làmb ji li jëm sunu kanam yëpp bis bu ñëw rek mhm. gàcceel bi paase waaw mu ngi noonu ñu ngi koy xaar euh, avec patience et euh, en espérant que sa va très bien se passer. incha allah parce que lamb ji bëri na coow Babacar. waaw non parce que lamb ju mag la. lamb ju mag la mhm. mag la. bëri na coow waaw mu mhm. daal di jàll nag. Mhm. nga xamante ne mooy ndaanaan bi biir si biir ah. <laughs> borom borom borom suñu lamb tey daal dama gis sa image rek ma naan non kii sama góor la. waaw loolu kii Babacar. defe naa ko de defe naa sama photo la mu ngi noonu reporter à Equivox TV. Mhm. Mm, Kawo Gourdin légèrement favori. Mhm. devant Thiatou Daouda Fall. waaw maa ngi nuyu waa sunu lamb encore une du nuyu. Mhm. groupe Africom yëpp. parce que bu ma ko waxee stade ak ñu ñëpp foofu lañu bokk suñu grand yi fa ne ñoom Iba Kane ñoom Dembélé ak nga xam ne moo ma jëloon interview boobu muy Abdoulaye Dieye mhm. moom tamit maa ngi koy bëgg bu baax ndax moo ma jëloon di ma laaj sama xalaat mhm. li ma wax nag nekkul ne mooy li li maanaam mooy li nga xam ne ni euh, moo convaincre ñëpp mhm. mais dafa ma laaj nit ki bu ñu la laajee sa xalaat ci mbir te nga nekk ci am nga droit wax ci te Kaw Gourdin ak Thiat Daouda Fall gis naa leen ñu bëri xam naa leen bi ma laajee nag Kanta ñoom ñaar seen combat parce que boobu mooy am suba samedi Jax moo ko tëgg. Mhm. mu xamal ma ne mu laaj ma si combat ma ne ko ñoom ñaar actuellement boo xoolee ah euh, ci côté favori dama koy jox Kaaw Gourdin parce que li tax mooy. Mhm. mu jiitu ca boo xam ne. Mhm. mu ngi ci dynamique bu doy waar ba pare nekk xale. ne ci ay loxo yu leer. mu caat daaw dafal entraîneur am Lamine Faye ñu naan ko Lamine Golo ma koy nuyu en passage ma dégg ci moom mu ne ma xale bi ku ko gën a respecté entraînement ci école ba amu fa. daaw Fall yàlla na ko yàlla yaram di papaam muy rakku Double Less numéro 2 mhm. kon ça veut dire que xale la boo xam ne nii loolu moo tax euh, ma jàpp ne daal euh, kee mooy favori kaaw gourde mais légèrement parce que xale bii ku jar bàyyi xel la mu caat Daouda Fall moo tax sa itam mhm. jàk si andi na lu neex pour amateur làmb yi ah mi ngi noonu. Mhm. mi ngi noonu Babacar yaa ko wax say gàddu mhm. la mhm. mi ngi noonu leeral nga ko en plus. bien ah. sûr <laughs> voilà. Euh, su ko defee ñu daal di jàll ci ko nga xamante ne mooy Siteu bu Ngor. caatu Rebeuss. duel de petite. scellé par petit. production. waaw petit xam naa bu ko tubaab dee wax mooy ay xale yu yu yu yemambaay. waaye ñoo xam ne. bàyyi nañ leen xel mooy Siteu bu Ngor ak ki nga xam ne nii moom mooy Caatu Rëbës Petit Production nag suñu rakk la di suñu xarit ñëwoon na ci benn saison làmba ba benn moment mu taxaw ren nag mu dikkaat bi mu dikkee taxawal ay xale xale bi ñuy wax Siteu bu Ngor nag mbooloo mi mu yor dinañ fay mbër kase bu bari te du ko yor ndax bu yàggul jamaykee moo ko tëgg kere stadium Iba Mar Diop am na tribune boo xam ne moom dong moo ko occupé ki supporter am ba mu amee ndam bay génne stade ba ba mu génne tribune bi da koo vidéo yóbbu ko xale bu am mbooloo la mhm. Thiatou Rebeuss bi jóge ci defet mhm. war a dikkaat digganteem ak ki nga xam ne nii moom moo di euh, xale bi dëkk jàmm ak Liss Ndiago daanoon ko bu waree dikkaat nag war a jël xale bi kon combat la boo ko a a man mi waroon dem taxaw euh, présenté ko mais malheureusement xam nga grève beeg yooyu jàppal bàyyil ba tax jur kii mais Lamine mu nga fa woon parce fu nekkul bu fa Lamine nekkee rek foofa day daal di baax mm. fu Lamine nekkul bu fa Babacar nekkee day baax parce ñun ñaar benn lañ quoi macha allah da ngeen di compléter TV <laughs> sama seex loolu moom solennellement laa koy wax. macha allah waaw mi ngi ñëw mi ngi noonu ñu daal di jàll ci ko nga xamante ne mooy Zos. Euh, Zos mm. brise le silence pourquoi arrêter ma carrière. lu tax muy arrêter carrière. Mm. mi ngi noonu ñu ko ñu naan ko arrêté seen àddina ah, arrêté carrière su ñooñu dañuy pour man nag wax dëgg yàlla loolu ñuy wax est-ce que am nañ fu ñu ko teg sas mooy sas mooy sportive bi licence am jeexagul mu ngi bëri. yaa ngi dégg moom moo toogoon ba benn moment mu ne bàyyi na làmb xëyaat na xam ne xaw ma lu ko ci génne dikkaat na entraîné jël na combat bëri na. Mm. dem na ardo ñu ne ko mënatoo bëre mu ñàkk combat am ñibbi na këram ñu naan ko nga arrêté mm, man de d'accord ma mm. moom miy bëre xam na li mu man ak li mu mënul. xam na ban niveau la toll. li ma koy wax daal comme du arrêté wul. Mm-hmm. li ko ciy génne mooy dem entraîné ji. te jëf jëf yu mbëri mu daan jëf. parce que tamit am na yoo xam ne bu yàggee day nekk complexe. Mhm. te ñun ay sénégalais lañu ay africain lañu. Mhm. jos mbërum làmb la ñun làmb tax ñu xam ko na wàccaat ci suuf si dem contact yi ci écrit yi. Mhm. yaa ngi dégg yor na écrit yor na ay xale yoo xam ne nii tey ay ñoom booy fayam ko wër ay Cheikh Tidiane ñaa écrit dóor dóoraat ak Garga Mbossé rakkam pourquoi du na demaat saxalaat dëggalaat boppam parce que ay morom a ngi ci làmb ji di lekk ay millions. te moom macha allah euh, waaw non xam nga ni des fois di nga def erreur. ci communication def erreur ci lépp. maanaam Youssou dafa am lu mu woyoon boo lekkee ci ndab ah ba mu set ubal ba mu jeeg teraanga la boo lekkul ci ndab ubal ba mu jeeg teraanga la waaye lekk ci ndab ba suur bu la neexee nga poussé ko nu mu la neexee wala nga jiitu sa sotti sa loolu erreur la te pour man loolu Zos daf ko defoon muy erreur ci làmba manoon na bàyyi lamb bu ko neexee mais bu ko bàyyee communication bi mënoon na ko waxee neneen mais noo dootuma fi nekk di ngembu. Mm. lekk ay cere di daw di wax ay wax yoo xam ne kenn mooy loolu. Uh-huh. Ah, voilà ah, voilà moo tax nag it bon xëy na loolu erreur la man loolu laa ko jàppee njuumte la rectifié wu na dikkaat na si lamb mm-hmm. na entraîné ji rek mm-hmm. parce que Zoss moom. mbër mu ne bëgg nga bëreek moom mm-hmm. parce que loolu lu mu liggéey li ci làmb voilà euh, mi ngi noonu Babacar Alioune Seye Le showman. Le showman, oui. Mhm. <laughs> c'est un du percute qui a cassé son arcade. waaw parce que Alioune Seye de ba tey sos lay waxal. parce que mhm. sos xam nga ne Alioune Seye da ko jam dara. du dóor kese. Mhm. ah xam naa dóor boobu mooy Alioune Seye nag nee na ko dama laa dóor rek. xam naa dóor ba métti. ba dóor kese la jamono wala dara. dama laa dóor kese waaw loolu nag yaa des fois ngis mbër daanu naan mais xam naa ne dóor bi moo metti rek mais nag mm-hmm. bon loolu mooy li tax euh, R4 bi tëju ñu ngi koy encouragé sos parce que tamit la fait que tamit mu am courage u dikkaat mm-hmm. taxawaat mm-hmm. di ngemboot di bëri ça dire que kon moom tamit def na erreur mais reconnaître na ko te loolu bokk na ci grandeur am erreur wala nga juum xam ne dama juum rectifier sa bopp loolu nit ku nite dëgg moo koy nangu di ko def mi ngi noonu Babacar saccage des euh, les lutteurs. Mhm. et brandit le que mbër yi la accusé ba pare génne yar bi. mi ngi loolu. waaw loolu nag bon ñu ngi si bu métti. de bien sûr waaw xam naa ne nag supporter daal nañu yërëm mbër yi. Mm. parce que mbër mi tamit wax dëgg yàlla. man xam naa mbër yi du ñu ne kenn damm lay sees moom. dëgg neex yàlla. Mm. waaye nag comme ñooñu acteurs yi ñooy bëree. moo tax yar bi di leen dal man nag dama gis ne CNG nag utaat beneen matukaay na fexe def le tout pour que ñoo ñuy damm saisi bu ñu ko defatee au lieu que ñu koy teg ci mbër mi mais ñu teg ko ci kooku bu ñu ko jàppee mais tamit wax dëgg yàlla bëre ba pare metti na ñu téye sa kase nangu ko wala nga ñëw defar si saisi dana xaw a metti kon nañu def le tout ñoom biraa maa ngi leen di wax nañu gën a yokk liggéey bi ci fexe ba ñëw ñu nga xam ne ñooy salteel ñu jàpp leen ah mais téye leen ci loxo jubbanti leen ba ñu jub parce que du benn mbër boo xam ne di nga takk ngeen ñëw arène nationale ne say supporter bu ma daanee wala ñu daan ma na nga damm saisi non non non loolu foogu moom non non waaw fooguñu ko mi ngi noonu mhm. ñu daal di jàll ci ko nga xamante mhm. mhm. moom daal il dit qu'il est contre la mesure du CNG waaw moom taxawaay boobu CNG taxawaay xam naa ci mbëri ak damm saisi ak yooyu ak li ñu koy faje la d'accordul waaw te ci milieu bi la bokk écurie la yor di directeur di di di koo xam ne directeur technique ku écrit kaay baax la di bu nekk ci Rufisque am na droit bi ah parce que tamit loo àndul da nga naan ànduma ci loolu mooy nit bu normal moom gis-gis bi mu amee du boobu effectivement mën nañu taat benn solution ba nga xam ne ñi koy def hmm. comme li ma wax léegi ñu jàpp leen loolu war te mën a të Euh, euh, euh, vraiment. Uh-huh. Uh-huh. mu ngi noonu Babacar ah tey uh-huh. loolu lañ indiloon suñu mbokk internet yi. Ah. waaw mu bàyyi la nga nga nga nga tàggatoo. waaw di di di di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak si ajuma ji. di la ñaanal jàmm di ko ñaanal ñuy seetaan. di ko ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy équipe bi nekk fi di fi liggéey di jàmm kum si mën a doon rek xam nga ñu ngi lay ñaanal afiya bu baax baax a baax mais tamit di fàttali que ni suba Ablaye Diop suñu production teg na 1 million ak benn scooter fi nga xam ne mooy terrain Adrien Senghor. yaa ngi digganteeg suba ci euh, le 4 bi waaye le 18 décembre ku nga xam ne suñu rakk la suñu fan sa clubam dañ fa teg un million di ko sargalaale ñu delloo lépp Ablaye Ndour mi nga xam ne mooy nekk euh, ministre foofu ca palais ba di papa ci moom moom Boucar kon defe naa loolu tamit ne ko bàyyi xel yaa ngi dégg le 18 décembre lay am mhm. di la béggee bu baax a baax a baax di béggee encore une fois suñu soppe yépp fu ñu mën a seen àddina bi amuñu seen fay mhm. parce que gis nañ vraiment ni ñuy savourer affaire maanaam jàppal ne ab soññe la nit daal mhm. boo bëggee avancer jëm si kanam mhm. def ay effort mhm. amal humilité buñ la nee yow la même boo xamee ne yow la bul jël yow la jooju utiliser ko xam nga looy utiliser gën a jàppal ne ñii di la ñaax wala ñii daan la fi nga ko teg foofu la dañ lay pousse pour nga gën a avancer kon loolu laa lay dolli di bëgg ñëpp di nuyu sa kilifa gu gële Paa Ousmane. Paa Ousmane la ah, grand journaliste. tey mbaxana ak dóor koppate Paa Ousmane bu baax a baax <laughs> di nuyu ak El Hadj moo newoon si montage bi encore ñëpp jàmm bi parce que lii foofu mu wane ko nag. bi. Ah, jaar dafa bëri dosé. Ah. man dama fi jaar lii daa jar a wax. Babacar i ah Babacar sa baax na. man dama fi jaar de man. macha allah non ñun célibataire yi dañuy xool yi di rus daal. man dama def lii de kon maa ngi koy bëggee bu baax di nuyu sama soxna yëpp. gis naa ñuy jubilé si ginnaaw di ah, wane seen moom man ta ñàkk du mën a ñàkk xam nga jigéen ju baax bu la yàlla booleeg moom. te man yàlla dafa ma aboleeg ay jigéen yu baax. barke rasulullah sama aw dafa baax lool sama ñaareel baax lool. ñaari galon nga takk. waaw du man a ñàkk parce que góor yàlla la te yàllaa ko santaane. dañuy naan daal góor bu xas ba takk ñaari galon xaaral ñetteel bi ngi ci yaa ngi ci ah. yàlla baax na loolu dinañ ci waxtaan ma ak yow. wala ma bàyyi gars yi ñu. jamais di nangoo dëgg. ah doo nangoo parce que yàlla baax na.